man daal yow mu nekkoon ma maa ngi woon Dakar Marix fa laa doon liggéey man daal ci mu liggéey kooku day togg di di livré ci comment dire day livré quoi comme par exemple ku def ay commande dañ lay livré moom daal mu sot dem hôpital ñu téye ko après si lañ xëyee ñu daal ñu ñu ñu quarantaine leen parce que dafa am corona ñu léegi ñu fa une semaine après ñu ngi dañuy defar test bi ñu defaree test si la ñu ñëw jël seen nag man période boobu nag maa ngi sot ba bëgg dee moom tamit léegi suñu patron bi ñu fa dem ba foofu mu xam ni une semaine yi ñu ko fi téye moom waxuñu ko daal dañ ko téye rek waxuñu ko daal mais ñu ñu jël si moom moo tax moom mu comprendre que ni Ah, dañ ko jiñ nii dafa am corona mu commencé pétale seen kaw tëb dal moom pour moom fatiguement moo ko jàppoon rek ñu exposé ko foofu mu tëb seen kaw yuuxu am leen lu may liggéey bu leen ma yàq sama liggéey ñu bàyyi ko nit ñi nga xam te ne ñu bàyyi ñu fa man ak quatre cinq personnes lañ fa téye léegi ñu fa di dem ak génn man daal maa jeeg see infirmière bi laa woo ne ko dama abal téléphone parce que dama dama bëgg woo suñu waa kër ñoom ñu ñu ko wax suñu suñu famille buñ ko wax kenn parce que bu fekkee nañ leen koy wax dañ ñun leen di dañ leen di pénaliser daal jot ñu leen koy wax puisque si endroit boobu lañ te dafa lañu fekk donc jaruñu leen koy wax man daal yow affaire bi def ma kaa ma après affaire bi après man naa dugg ci douche pour nit ñi bañ a si ma dugg si laa woo woowee sama papa nag expliqué ko cas sama papa di ma dégg man dinaa fexe nan laa kiiwee pour mën a jokkoo ak ñoom après man ma wax ko kii bi docteur bi ma ne ko ma kon il va falloir que kon donc seen waa kër boo leen ne quarantaine ma parce que man nekkuma fa période bi nga xam te ne ngeen constaté man dama amee corona ma nekk ba foofu parce que ça fait un mois maa donc ñoom lii lañ gis tu vois yooyu noonu it ma nekk faat noonu ma nekk fa presque deux semaines yàlla xam na ne wallaahi ñi ma nekkandoo woon ci saal ba foofu yëpp amuñu corona dañ leen a fay xaalis bi ma dee dara xam tëddaay bi tëddaay bi dama ci sonn ndax waaye de xaalis da jarul lii man ko yaay boo looy wax ni mënuma billaay man ko mën de damaa xam sama sama asthme bi mosoon ñu bindal ma ay pompe def lu nekk ni dañ may sàppal bi tey ba li may wax ak yow sama loxo bi nii nii sama loxo droite bi dafa nee ma boo demee da nga ci def ak ndox bu tàng nga koy frotter ba mu rëy sàppal la biteel ba kenn xamatul piqûre yi ñuy piqûre nag toll na ni raccord yooyu noonu yëpp ci koo xamante dafa asthme man damaa naroon dee si seen i loxo dinañ dem nag ñu ne dañuy defaat beneen test ñu de beneen test ak crise asthme nga amee malheureusement papa woo leen commencé te ko waaw boo bëggee deux semaines si tëdd ñu jox la ndàmpaay trois cent cinquante bi sama papa ne leen man xaalis doomu état doomu mu intéressé donc libéré leen ko wala bañ ci dara nabu sukeer la ñu entré woon daal nabu sukeer nii la demee doy na waar daal mooy loolu moo tax islam ba léegi damay réccu sax xaw ma nag lii lii nii kon moo leen ko sant ak ak pour am ay kaa lan la lay yokk ci Sénégal pour fay wut ay cas lan lay yokk biir Sénégal hôpital Naby Chérif laa la ñu moo fa dendaloon ñëpp ñëpp ñëpp ay maire ki yenn jeunes yi ñoo fa tëdd te dara jotu leen lu wokk ginnaaw wokk leen mais imagine toi ñoom ñu tëdd fa te alors que ne amuñu feebar bi beneen feebar ñëw fekk leen fa ñoom du ñu rey seen bopp boo demoon ba foofu ngay comprendre parce que man infirmier bi mooma njëkk am mooy fii de ku feebar fexeel ñu faj la nga dem mais boo feebarul nga nekk fii fii nii bëgg xaalis li la fi xaar bul xam parce que formation essence bi ni xam nga auparavant dañ doon dañ leen doon ignorer ci dëkk kii nii dañu gën am doole gis nga Macky Sall affaire bi dérangé wu ko gisoo mu tëb tëb rek génn joxe ay décision ah waaw on va vivre avec donc ba pare masque yi nga xamante ne ni moom la ñuy jaayee pharmacie genre yooyu jërul jënd parce que ñoom liñ ciy def ñoom ñoo ko def ku dañ koy takk ba mu yàgg nga mel ni da ngay niir wala nga mel ni kuy fàtt booy dem hôpital ñu naan da nga am da nga am affaire parce que liñ ciy def def nañ ko ci day mel ni diluant lañ ci def ba dalay niir loolu ñun ñu nekkoon hôpital xam nañ ci dara mujj gi infirmière moom ñun ñii masque yi ñuy defar ci si yi dem jënd moo gën a stable moom la dem tax xam bu baax yor naa sax numéro man ma man de damaa rëccu ni ma nekk fii ñoom ñoom ñu nekk foofu noonu noonu noonu par journée lañ leen di fay docteur yi instant bi infirmier bi gën a ndaw day recevoir xaas bu jeex te franc-maçon yi ñoo jël loolu noonu lépp teg ko gis nga boo demee piqûre yi lay def rek yow butéel yi lay samp rek bul xam nu muy demee bu nekkee sa yaram bi day mel ni daf dañuy dañuy jàmb sa yaram bi ay xiir billaay wala tal affaire bi bu ñu ma piqûre demee dañ dañ doon yëngal sama yaram bi di ma tourné xamatu woon fu ma nekk ñu ngi ma samp biteel ba sama yer loxo bi ne man leen sama liin man biteel dama doon xool buñ ma doon feebar dañu ñaari loxo yi ñu samp ci biteel ne yéen quatre biteel yëpp ci si loxo bi kese ngeen ko samp ñu ne ma sa poumon yi ñoo infecté asthme bi dafa infecté wu genre yooyu noonu fen seeni fen yoo xamante ne nii man dama toog ba bi nga xamante ne jeudi dama toog jooy fa hôpital ba di jooy ñu wax man ne damay ñibbi ñu ma tànnoo nga ne ma ne damay ñibbi parce que boobu mënatuma fa woon toog ndax dama dem ba xalaat ni fii nii à tout moment mën nañu piqué ñu dee te bul xam ne kenn mën nañ la déclarer ni cas grave si nga bokk wala genre yooyu noonu bul xam. moo tax dama am force jeudi bi vendredi nag si lañ ma libéré vendredi ay 17 heures ñun ma da ngay génn di wax ne ma yow ñu ngi doog am malaat bu mel ni yow am kaas lu ne mu wax ko ñu ko bul ñëw parce que bu boo weddee ki nga ne sama bul ñëw parce que wóorul mën nga ñëw ñu def benn kii bu nga xamante ne def la te ay mag la ñuy choisir pour ray leen jeunes yi nag jëlagul seen lii si si ñoom formation yi ñoo teg seeni affaire te kenn du kenn du bañ te kenn du kenn du bañ te kenn du